Modou Lo ak euh, sëñ Fallou Luc Nicolaï def seen i tontu bismillah moom waaw auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu journaliste yëpp ku ci ne sa tur ak sa sant di nuyu ñu fi teew ñëpp nuyu tamit ñu ñuy seetaan ah, ci télé bi waaw di souhaiter ñëpp bonne heureuse année deux mille dix neuf puisque deux mille vingt deux du moins parce que boobu léegi jotaay bu yaatoo bi amuñu ko xam nga di profiter di souhaiter àdduna yëpp bonne heureuse année deux mille vingt deux di ñaan at bi ñu dugg yàlla nekk at bu dàkk ci at yi yàlla génnal ñu fi mbas bi Sénégal yàlla def fi jàmm di ñaanal tamit lion yi kan bi ñu dem yàlla jox leen ndam bi ñu indi ko fii di nuyu Sénégal bi nuyu monde entier Modou première laaj bi mooy sa diggante ak Ama Baldé coow li bëri na fitna bi bëri na jàpp nañu ñaari yoon face à face bi mu avorté nit ñi dem nañu sax bay dute ci combat bi dina am ak du am alors loolu yëpp tey la ñu bëgg nga dellusiwaat ci euh, pour ñu dellusiwaat xel yi d'abord mais pour confirmer nit ñu que Modou Lo Ama Baldé bu jàmm rek amee dinañu sëgg le 13 mars. waaw waaw El Hadj moo moo yëkkati gën a jege waaw gën a yëkkati kàddu bi aussi mhm. alors waaw El Hadj defe naa wax nga lépp ci sa introduction bi tey ñun bu ñu teewee fii nii ligue lu mu woote muy jàmm te képp kuy nit jàmm war na la yitteel ay sax amu fi trop trop trop mais dafa am lu ñuy gis ci làmb ji waxuma rek làmb ji mais partout ci jeunesse su Sénégal temps yi muy violence dafa bari trop trop trop trop ba tax na li nga wax jàpp nañ fi ñaari yoon ñu war a jàkkaarloo ay fitna wala yooyu tax na ba tax amul looloo war a tey woote bi incha allah ñu toog wax làmb ji moom comme li nga wax rek dina am ak du am moom kenn waxatu ko am incha allah bu yàlla defee jàmm rek dina am mais di wax rek mbër yi tamit dañ ci am responsabilité bu mag a mag a mag muy si seen kàddu parce que nit ki du lu la neex wala fu la neex rek nga koy waxee parce que tamit am na li nga xam ni dafay dafay dafay yee xale yi ci ci ci ci violation ba tax na nañu xoolaat suñu communication bu baax a baax lu ñuy waxee ak as ak askan bi mais di waxaat jeunesse Sénégal rek Sénégal jeunes yi lañ yaakaar suba pour ñu yor ko mais tey jeunes yi bu ñu yoree yenn comportement yi du ñu neex a xàmmee wala sax kuy dund fii Sénégal sa xel mën naa bañ a dal parce que li may wax du ci làmb ji fépp la bé bépp boor ci Sénégal muy football bi muy politique bi muy leneen ak leneen violence da cee bëri trop trop trop trop te violence amul lu muy defar buñ nee Sénégal ne pays de la teranga teranga bi suñ biir la war a njëkkee mais pas ñu nekk di yee ay fitna ay histoire yi nga xam ni amul amul benn sens jëmmewul fenn dëkk bi xam di waxaat jeunesse bi rek ñu bàyyi xel ci loolu puisque réew mi seen loxo la war a mujjee nañu xoolaat seen comportement bu baax baax a baax supporter mbër wala supporter ku mën a doon taxul ngay ñëw di xeex wala di sànni ay xeer wala non sport dafa war a boole mais warul tàggale loolu la. combat bu nekk am nga ko fi tàkkusaan bu nekk am nga ko fi mais tension bi ñu sentir ci combat bi euh, dafa mel ni dafa jéggi dayoo. lan moo waral lu ni mel alors que yow daje nga fekk ku ne yàgg Balla Gaye métti woon na lool te fu mu mujj bëree mu jeex tey yéen a ngi nii di naanandoo ataaya ak a bokk benn bool di ci lekk. mais damay wax tension bi est-ce que ñu jël combat bi benn côté bi est-ce que ñoom affaire bi diisul si ñoom ba ba ba ñu jëlee ko violence quoi parce que man comme li wax bis bu nekk am naa ko bis bu nekk am naa ko mënuñu am bis bu ñu dépassé xam nga lépp dañ ciy dugg nuñ ci war a duggee dem jéem a defar. mais su ma juumul ñee est-ce que jëluñu lu leen ëpp doole ba tax ñu bëgg ko kii ak violence. danga nga jàpp ni fitna bi am yëpp beneen camp bi la du sa camp. ah ci responsabilité. ñun keroog li am rek ñun bu ñu am na noo xam ne bu ñu defoon comme ñoom tey mën na toll fi nga xam ne tey dañ koy nettali deneen lay doon mais xam nga bañ yooyu yëpp moo tax xam nga ñu def yëfu mag tourné ndànk dem ñibbi. waaw parce que xam nga ay signataires yëpp dafa am convocation bu njëkk bi bu ñuy dem. boobu maa ngi jokkoo ak ñi ma war a jokkool muy lig ñu ngi toll fu ñu tollu foofu benn dafa amoon coow avant ñun ñëw sax départ suñu kër amoon na coow ma ñëw ba taxaw côté boobu woo saa yi ñu ne ñu xaaral tuuti ñu régler problème bi mais suñu côté amul woon benn benn benn problème problème bi foofu la nekkoon ñi fa nekkoon ak force de l'ordre bi xam nga ñun ñu ñëw ñu mujj a dem affaire xat ñu mujj a ñibbi keroog tamit noonu la demee ñun indiwuñu benn violence dañu def suñu escorte ñëw avancé ñëw ba jegee saat jékki-jékki gis ay xeer yu jóge fu nekk xam nga ñu def yëfu mag tourné ñi bi ah mais amul benn violence boo xam ne suñu côté la jógee comme ni ma wax bis bu nekk am nañ ko ci làmb bis du ñu dépassé du ñu dépassé bañ def naka sudul noonu bu dul loolu tamit tey fu ñu yàlla teg ci làmb dañu war di defar rek dañu war a gis li nga xam ne luy ñaaw la ñu jéem ci wax wala jëf ci ba mu ko mais nag du ñu indi lenn li nga xam ne violence la muy ci wax muy ci jëf jàmbaar wrestling rock énergie parcelle mbooloo yëpp écrit yu nekk parcelle yëpp écrit yu nekk parcelle man benn laa ko def parce que tey su ma amee combat ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen écrit ñëw nekk sama côté mel ne ku nekk ko énergie te papa moo amoon combat bu jàpp ñun ñëpp ñu koy pare loolu moo taxoon ñu dem foofu di ko jàppale mais rock énergie la ñu nekk toujours incha allah fa la ñuy nekk bay bàyyi bëre bu soobee yàlla contact yi yaa ngi koy def ak waa Rock Énergie wala eggagoo ci level boobu parce que dafa mel ni nee nañu da nga làqatu Lac Rose rek parcelle gisatu la. non non man chaque jour que je fais man maa ngi maa ngi parcelle ah fa laay ñëw fa laay ñëw di ngi daal xam nga ci liggéey bi lu ñu yaakaar moom ñuy may dam ñëw ngi ci incha allah lépp étape par étape la bu ñu tolloo ci étape incha allah bu ñu war a demal feneen rek la ñuy def waaw waaw comme li ma wax sànq rek suma supporter du ma leen di wax lu dul incha allah combat bi na am boobu ba léegi li ma war a nekk maa ngi ci jàpp ni combat bi dina am incha allah te loolu la ñu ñaan mu yóbbuñu ci ak jàmm ak salaam di wax supporter yi rek ñu dalal seen xel bu baax a baax seen mbër xam na lu ne ci kanamam xam na lu koy xaar bu baax a baax incha allah te maa ngi ci yàlla baax daal.